bisimilahi rahmaani rahim barkeb Serigne Touba Khadim Rasoul aleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne ni yéen a ngi bàyyi xel Mouride TV foo leen mën a nekk ci àdduna ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen balu ak rawatina ci bis bu am solo bi nga xam ne nii lu am wàccuwaay la ci taarixu jullit yi muy bisub Ashura ñu koy dëgmal ëllëg niñ koy ànd ak yéen ci seen émission ziar te jii nag ñu seeti kenn ci góor yàlla yi di jànkatu xasda yi. muy sëriñ Cheikhouna Mbaj sëriñ Cheikhouna Mbaj nag di jànkatu xasida du nekkatul koo xam ne nii dañ koy présenté ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci réew mi ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci diaspora bi di dund xasida moom nag lañ fekk si tey jii fii ci daaraam ci Touba euh, Soura fas yéene ànd ak moom waxtaan wi yaatu incha allah rabbi. sëñ Abdoulaye ñoo ngi lay nuyu bu baax di la siyaare bu baax ci bis bi nu dëgmal bisu tey itam Euh, di siyaare mbooleem kuy bàyyi xel site bii di Almouride TV di leen ñaanal yàlla te di ko sàkku ci yéen di ñaanal Cheikh mun Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ba yéen ji mu ci liggéeyal ko sëriñ bi lépp suñu borom kàttanal ko mu def ci lu kawe njortam mu ngi siyaare mboolem kuy bàyyi xel site bi euh, di siyaare mboolem waajur yi itam ak soppi yi ak mboolem taalibeb sëriñ Tuubaa fu mu fi mën a nekk jërëjëf. kon ci njàlbeen. duñ def lu dul jox ko rek mu ubbee xasida ci li nga xam ne ni moom lañ ko xamee moom lañ koy identifier muy njàngum xasida dañ koy jox mu ànd ak ñun ci euh, barkeloo genn xasida ñu door a dugg nag ci dëgg-dëggi waxtaan wi wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa basara sayidayni سيد وسيدة بهاس القصيدة آمين يا رب العالمين يا من قال لا نفرق بين أحد من رسله فكلي وصربي به فزت بسره الحسنات سيدة لمحسنات مريم فقت مخنات عند الذي لم يدركين فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات مريم فخت موخنات عند الذي لم يدركي كن فيكون لك خات خير رسول الانتخاب وبكفاس سختخات ولم يكن بمشركين لم يخف عند المؤمنين كونك حب المزعنين يا أم خير محسنين معزومة من شركين يقودني لمدحك ما عنك فضلا قد حكي فزت ببشر مدهك كل تقي مدرك واجهتك اليوم بما يديم لي قوتا بما إلى احتواء سب ماء من غير قشد دركي أنت سلالة الكرام ما أمن وكحرام وأنت ذات الاحترام بلا امتحان للشرك شكر ربنا الكريم شأنك شكرا لا يرين ابنك نال ما يروم عند الذي لم يدرك رمت بدا من حبك رضا يديم خربك من رب ذات الحبك محت العدا والنشك بالله ذي كن فيكون طلبت منه أن يكون لكن نظامي زاركون وأن يطيب من شكي يا أم روح المالكين يا أم جال الحالكين ابن كلاب يالكين عند العلي المشكين بارك فيك ذو الجلال وفي ابنك في الضلال بما يخلد الحلال لخار مشكين هديتي قسي بلا رد كما تغبلا عند كريم خبلا من جدك المستبرك هديتي خسي بلا رد كما تخبلا عند كريم خبلا من جدك المستبرك شيخنا مباج تي خاسيدو ام سالو غوغا خامن ني ييكتي نكو موي فستي دي خاسيدو غيغا خامن ني سيرن توبا خاريم رسول مي بروم خاسيدو da jaglel jagleel soxna Mariama wajuru Seydina Isa waaye ni ciy fasaale bu baax a baax soxna maam Jaara Buso mi nga xam ne sering mooy waajuru Serigne Touba Xadim Rasoul Serigne Cheikhouna nag mel na ni kenn la ci soppe yi e, soppe soxna Jaara ndax ku sopp Serigne Touba sopp soxna Jaara ndax lépp moom la ni ko junjee ci ak njàlbeen rek e, dañ ko waroon dañ ko na wax ci suñu ubbite jataay bi ñu ko séq ak ñenn ci soppe yi Serigne Cheikhouna Mbaj waaye ñenn ci ñi nga xam ne nii moom lay àndal ñoom lay àndal di yëkkati xasida yi xam naa incha allah ci suñu njeexitalu émission dinañ leen jox kàddu gi ñu defal ñu ay baati seede ci jëmm ji nga xam ne nii moom la ñu xam ànd ak moom saa su nekk. kon duñ def lu dul tàbbi nag ci dëgg-dëgg waxtaan wi Serigne naa ginnaaw bi ñu la ndokkelee jaajëfal la ci njàngam mu am solo moomu Cheikhouna Mbaj muñ bëgg na xam tuuti ci jaar-jaaram am njàngam ba ni mu duggee ci xasida yi lan nga leen di baaxee. Euh, euh, ci laaj bi. Euh, xam naa ni ñu jëm cee tontu euh, Cheikhouna Mbaj taalibeb sëñ Touba la bu juddoo tuubaa yaroo fi euh, sama cosaan di Kajoor samay waajur jóge fa ñëw fii ci atum sëñ Basiru man ma juddoo tuubaa li ma jotog jàng ko néew Fila la ko jàngee ci école Serigne Cheikh gende Fatma bi ci daru khudus defna fa ay at yu new jóge fa euh, ci jàkkee marché Ocass fi ñi wéccu ko xasside yi fi sama wajur nekkon ma jang fa xam-xam ci Serigne Touba Sorong mi donon Iliman ja lenn ci téré Serigne Touba yi euh, ma jangé ko ci euh tambali itam jangum xasida ci booba gën na ma nekk tuut tànk ndax itam bi may yëkkati xasida yi wala bi ci sama xel di nekk euh, booba sama waajur sun sëñ Cheikh Gaynde ma joxoon na ko ndigal booba sëñ Cheikh jóge na fi mu continuer ndigal loola di ko jàngal Daaru Xudus euh, léeg-léeg itam ma daan ànd ak moom booba tuut tànk la mu koy yëkkatil xasida fee ci Petit pale ci këram gi ci daarul xuddus booba sëñ Mbàkke soxna loo mi ngi fi yàlla na suñu borom dolli ay leeram euh, nga xam ni bu fi nekk bu fi sëriñ bi nekkaan bis bu jot dafa daan dem di yëkkati xasida yi bu fi nekkul nag guddi àjjuma gu nekk mu dem di ko fa yëkkati euh, ba noonu xëy na xasida moom ñi koy jàng a ah, sëriñ bi moo leen di tànn waaye ba mu ànd dogal ba itam li ma gën a nàmpatal ci xasida sama xel gën cee nekk xëy na loolu ci la bokk mooy waajur wi di ñaan di ko ñaanal mu gën fee yàgg te wér mën naa ne bi ma koy tàmbali di yëkkati sëñ Abdou Lahad mi ngi fi kon booba teel na waaye booba may dé may déglu bandu baay Abdoulahi Ñang mën naa ne mu muxaddimatul am daa sax mokkaloon naa ko ci déglu gi ma ko daan déglu di tambuli di ko roy ci am njàng di jàngantu bu ñu bi ñu fi fii ci koñ bi itam ñu def fii ab kuréel boo xam ni dañ koy def par ay bis bu nekk ñu daje la la ko jiitu ay baas lañ daan baas baas yi yu yi xaj ñu daje ca di jàng li ci topp mooy kuréel yooyu ma lay wax euh, may gën di nampatal ci xasida yi booba ba léegi nag jóguma ci euh, di ko sant yàlla bu baax ak sëriñ bi euh, waaye Baye Ablaye Niang daal moom ci ñu ma jëkk a roy ci njàngu mag ci la bokk Baye Makhtar Mbaye li ci topp sëriñ Abdoulaye Seck sëñ Xaadim Guèye noonu daal la demee noonu kooku mooy sëñ Cheikh Nambaj ci parcours am waaw. macha allah Serigne Cheikhouna yaakaar naa ne tontu yi tënku na waaye matale na ñu mën cee déggee ne Serigne bi mu nekkee tout tànk waajuram ni mbooleem waajur yi di def tout tànk jàngal ko wala dugal ko mu dem jàngi mu jàngi xam rawatina téere Serigne Touba Xadim Rasoul waaye itam daan ànd ak waajuram di yëkkati xasida kon mën na ne bi mu nekkee tout tànk la teel a namputalu ci xasida yi nga xam ne nii. waajuram daan na ko yëkkati ci kanam sëriñ Mbacke soxna Lo yal na suñu borom yokk ay leeram ni nga ko waxee. Euh, mu mel ni itam comme niñ koy gisee ci tout tànk yi nit ku nekk amaana boo xoolee la muy liggéey euh, boo demee tuuti gëstu ci ak ndawam amaana loolee daan na ko foye ci ak ndawam kon yaakaar naa ne yàgg na bëgg wala yàgg naa nam na bi wala yàgg naa dox di jéem a niru niru lu jàngub xasida jànkatub xasida ba ni mu sóoboo ci xasida yi waaye ni mu ko waxee itam mu ngi doon roy wala de bàyyi xel kenn ci ko nga xamante ni mbooleem ku daan dund xasida wala nga koy dégg bàyyi nga ko xel xam nga ko muy Serigne Ablaye Niang fi mu dëkk ak fi sorewul ak bàyyi Makhtar mbay ñoom ñëpp nekkoon ay jànkatu xasida ñu miin leen ci Daaru Xuddoos sëñ Makhtar Mbaye yàlla na suñ borom yokk ay leeram ci barke xasida Baye Ablaye Niang mu yàgg fi loolu te wér kon yaakaar naa ne laaj bu njëkk bi tontu li gàtt na tënku na beneen daa laaj bi ci tegu mooy Serigne naa wax nga ko léegi bi ngay door a tàmbali njàngum xasida yaa ngi doon uh, roy Baye Ablaye Niang ak Serigne Makhtar mbay mu mel ni ku ku la faral di déglu itam day dégg uh, mboolem mag ñi macha allah képp koo ci roy rek day mel ni daanaka kooku uh, sa diggante ak moom maanaam seen i kaddu daanaka mën nañ ne benn la ku ci mel ni Serigne ji Cissé maa ngi dégg ngay jàng benn bushram bu am solo Serigne May léeg-léeg yëkkati ko moom itam ñu bëgg na xam ci mag ñooñu ndax. da nga leen di roy ngir am loo jëlee ci ñoom wala am nga say ay propre daaj yoo xamante ni say daaj yoo inspiré la wala yow da nga bëgg a tënku rek ci njàngu mag ñi nga xam ne nii moom lañ la limal léegi nii. Euh, njàng mi nga xam ni maa ngi koy def di ci roy mag ñi euh, suñ borom dimbali ma ci itam ndax itam xëy na du lu yomb lool njàng euh, dafa xaw a dafa xaw a doy waar. waye bula bula jappone rek dimbalul serigne bi la. budul dara rek yëkkati giñ doon yëkkati seen cadeau ci wetu serigne bi wala ñu ak serigne bi di ko lola barke nga ca bo xamne nekul fanen euh lola nak bu yalla dogale nga man ca dara kus si boko mënul sax war ko jëm bu la ci yalla dimbulé nga man ca dara war di ci jaar waxtu nek ngir di ko fàttali busraana naa boobu ngay wax sëñ Muntaxa Basiir yàlla fi yàgg te daf ko seetaan booba doonagul xalifa ci la ma woolu ci laa ko jëkk a nuyoo wax nu ci ay cant yu yu yu rëy ak i ñaan loola loola moo ma may loolu loolu moo ma ko may ndax sëriñ bi moom ku ne xam na fa mu toll jooyal sunu xel ci xasida yi nàmm suñu xel euh, jéem a def dara loo xam ne bu ëllëgee ah bu nu fi nekkatul kat ñu xam doonul ngir def ko àdduna wala déedéet waaye ku yokkul yaa wàññi loolu la wolof di wax te yokk nag defe naa moo gën wàññi loolu moo tax ñuy jéem a nam na di di jooyal sunu xel di donte xasida yi moom euh, mënee su ko yokk da nga ciy yokkoo jërëjëf Serigne Cheikhouna euh, Serigne Cheikhouna ba tey mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel Mouride TV euh, ñoo ngi leen di fàttali rek ne suñu émission ziar bi nga xam ne nii dañ koy def ak jànkatu xasida yi tey nag nekk suñu première sorti tey nag nekk suñu première sortie euh, ñu defe ko kër Serigne Cheikhouna Mbaj ci bis bu am solo bi nga xam ne nii niñ koy waxee ci njalbin gi bis bu am wàccuwaay la ci taarixu jullit yi ñaareelu laaj bi itam macha allah wér na waaye dañuy desandi foofu ba tey ci mag ñi nga xam ne nii tudd nga leen ci ndaw ñi war a roy ci ñoom rawatina ci njàngum xasida ndax tey jii boo xoolee li ëpp ci jànkatu xasida yi moo xam ñiy rajas moo xam ñi yore kuréel di aw moo xam ñi yore kuréel di eh, eh, mawlud ñu ëpp ci ñoom seenam njàng ci mag ñi lañ koy royee donte léegi comme ni nga ko waxee ku nekk yaa ngi jéem a indi sa daaji bopp waaye seexun sëñ seexu ñu naan ñu am lu loo xam ne nii seetlu nañ ko ci njàng mi xew léegi wala njàng mi nga xam ne nii ñu ne ci menn njàng la nekk waaye dañ ko seetlu léegi ci moo xam kuréelkat yi ku mën a doon donte ñu ngi jéem a góorgóorlu ci njàngu mag ñi waaye gis nañ léegi création daaj yi bëri na te daaj yu ci bëri bëri xëy na bu ñu koy créer duñu bàyyi xel euh, mbind mi maanaam ci bëxru yi ndax daaj bu nekk dafa am bëxru bu mu méngool moo xam muy rajas moo xam muy tawil moo xam bu mën a doon dafa am daaj bu nekk dafa am bëxru bu bu bu bu mu méngool waaye dañoo seetlu léegi jànkat yi ñu ci ëpp daanaka bu ñuy euh, créer dañuy topp woy wala seen neexitu baat loolu itam ban jàngat nga ci am ci ndaw ñi donte dañuy roy mag ñi itam mën a bàyyi xel xas day donte dañuy créer ay daaj. jërëjëf sëñ Abdoulaye euh, waaw wax nga dëgg euh, jamono ji njàng mi. bari nay xeet lool bari na ñu koy def itam loolu nag ginnaaw bañ ci sant yàlla dëgg la lu ci ëpp ay ndaw a koy def te ndaw moom faw am luy daw ci deret ji léeg-léeg am na ci xeeti jàngin yoo xam ni wax nga ko léegi law na sax ba ci kuréel yi Euh, léeg-léeg nga dégg daaj boo xam ni euh, dana xaw a zahire laa ko mën a waxe euh, waaye loolu yëpp day dikkaat ci sama kàddu njëkk rek xëy na ndaw ñi ñoo koy def ndaw lu muy def rek ñaare ñaare léeg-léeg mata di feeñ ca tuuti loolu nag dañ ciy soññ sunu bopp rek di len ci soñu ndax serigne bi mom daram andut ak mbosor daram andut ak tiaxan a ah, bu la yalla dimbulé nak ba sa bat neex serigne bi dimbulé la nga ne ci war nga jema def sa bop mak du du koko koko lu dedet way da ngay def sa bop mak jema dox doxinu mak euh doxinu mak nak ku ne xamna nim wara mel euh, lu bari dang ko dang dang dang dang ko seexlu lu bari dang ko wan ginnaw lu bari dang ko xeb ngir dang ko dang ko wara rombu waro ko falé euh xisi day nak boko yëkëti baat bu neex bi ci la bokku waaye nag na baatine tuuti lu mu néew néew rek na baatine ba ku ko dégg xam ni kii kat eh, li muy wax waaye léeg-léeg nga dégg daaj boo xam ne nag waaw wax dëgg yàlla dana xaw a kéemaane donte xëy na ko koy def jubluwu ci fo jublu gi nag lu ci am solo la ndax eh, jublu rek jublu gi nit nit nit léeg-léeg mu nekk ci mbir nga xeebal ko ko fekk moom dana ca di yéegi jublu nga moo ko ko may mën ngaa nekk ci mbir itam mu niru lool lu dëggu waaye fekk na xol ba caaxaan rek a ca nekk nag nañ ci yàlla musal nag nañ jéem a sunu jublu gi nu jéem ko jubal ci liggéeyal sëñ Tuubaa am pas-pasub liggéeyal ko jëkk bu ñu yëkkati xasida yi di ko ci yëg di ko ci gis ah, laneen lu ca mën a xew nag léeg-léeg itam nga gis kuy jàng moom jàng rek lay bëgg a def waaye ña koy wër ña koy seetaan ñooy bëgg a fo loolu nag moom mënu ci dara waaw nag waaye nag nañ nañ gën a góor góorlu daal gën a bàyyi xel sëñ bi waaw. naa xam naa loolu nga wax noonu euh, point tomb bu am solo la boo xam ne nii ba tey dañ cay desandi ndax euh, ni nga ko waxee euh, nit ku nekk muy xam muy jàngkat moo xam loo mën di yëngu ñi nga xam ne ñoom ñoo lay bàyyi xel rawatina ñi lay seetaan yaa leen mën a dalloo yaa leen mën a yënguloo. lii olof yi di wax lu jóge ci xol ci xol lay tàbbi mu mel ni mel mel na ni wax nga responsabilité bu am solo boo xam ne nii ki yëkkati xasida ñu koy dégg am na ko ci ñi mu koy dégtal euh, rawatina yéen ñi nga xam ne nii da ngeen di jàng ñuy aw xasida yi kenn dugalu ci kenn sëriñ bee ci dugal ñëpp nit nag bu jekki-jekkee dugg ci mbir ak nu mu ca mën a duggee moo ko xam moo xam lu ko ca dugg moo xam àddunaa ko ca dugal moo xam sëriñ bi dundu sëriñ bee ko ca dugal moom moo koy xamal boppam waaye daal ak lu mën a xew euh, kuy jàng fi kanamu sëriñ bi moom xam nga na nga war a mel euh, bu fekkee nag bu sëriñ bi jigee nga soppi kon am na lu xew. kon nag mu nañ gën a góorlu li ma wax léegi nag tam nag am na ci ba tey nit ñi taalibi nit ñëpp maanaam taalibi yëpp taalibi sëriñ bi lañu am na ci ñoo xam ne nag ñu bàyyiwaale leen xel tuuti muy soxna yi koo xam ni dafa waroon na <laughs> nekk ci yeneen boo fexee ba ba muy dund sëñ bi ku su néew rek ak cant lay doon àgg hmm? ngay def ndànk-ndànk ba kérok xolam xolam di fess ak ak ak ak ak leer waaw boo bëggee tup tëb rek duggal ko ci fi ne léeg-léeg nga gis fu ñuy kurélé kenn du fa hmm wala bu jankatu aw ba jangé ba nopi ñëpp dem loolu lu mi tekki ndax ñi kurel dañu dañu nek dañu nekul ci li señ bi bëgg ta boy xol hmm seenum jang mo gëna mo gëna gën hmm waye nak li ma wax léegi rek da ciy am gone moom faw deret ji am lu ciy yëngu faaw rek muy yëngu waaye nag loo mën foo mën a yëngu nag yëngu ci sëñ bee ko gën euh, nañ nañ nañ leen nañ leen ci bàyyiwaale xel tuuti waaye nag kiy jàng am na responsabilité boo xam ni waru ko seetaan moom itam ñi ñu di ca àgg hmm. buñ ci naree àgg rek war naa war naa taxawlu wala mu artu waaw loolu moom léeg-léeg mu dal ñu ci sunu baas yi di jang ba ci yag ñu bëgg a fo xamni ah, da ngay daal di taxawlu nag wax leen nekkuñ ci ci ci sabar waaw kay. def euh, yaakaar naa ne ndénkaane yi am solo kon képp kuy jàng de rek yaa ngi ci biir moo xam muy euh, kay kurel kay rajas wala ka yore njàngum aw ñoom ñëpp yenn mbind la ñuy wax muy mbindum sëriñ bi la ca am solo kay mooy ni ko sëriñ Cheikhouna Mbaj waxee am melokaan ak pas-pas boo xam ne na ngay mel ak na ngay jàngee ci kanam sëriñ bi bo démé feneen bañ ko soppi yalla nañu ci yalla dugal ñun ñi dégglu ñun jang xass xasida lepp ñun ñëpp melni sëriñ Cheikhouna ñu ngi waxtané lu am solo ngeen nekk ci tol bob muy toolub khassida mu nekk lo xamné ni sëriñ Touba wax na ci ay mindam gannaaw alcorane ak hadith mindam yi mom la suñu borom gëna fonk kon nekk na mind yo xamné ni su ko daan bind aras day jaay kursi jaay malaaka yi di sàbbal nekk da ay mbind yo xam lim ci wax lepp ci ay xarbaax ak i suñ ko doon wax fi ba déwén du jeex kon ku ci nekk ndimmal la duñ fàtte mukk di wala duñ tàyyi mukk di nettali xista boobu nga xam ne ni siiw na lool ci ni ko sëriñ bi waxe woon mag ñi eh, gudd na ci xasida yi wàccuwaay bi mu am ci ki koy jàng ki koy déglu ak ki ko bind muy njanaaw la loolu képp kuy jàng xasida wala ngay déglu xasida yaakaar naa ne déglu nga eh, xista boobu mel ni kon xasida njëriñam yëmul rek ci ki koy jàng gannaaw sëriñ bi ki nga xam ne da koy jàng ki koy déglu itam yaakaar naa ne da ciy jëriñu léegi bu ñu bëgg a dugg tuuti ci ngëneelu xasida yi Serigne Touba yooyu donte xëy na nekk na tomb boo xam ne ni dañoo daf ci biir waxtaan wi euh, sëñ Cheikhouna Mbaj di jàng xasida bu ñu bëggoon murit yi nga xam ne ni jamono yi ñu ngi koy teewlu di ko seetaan wax leen tuuti ci njariñu xasida yi ban gën cee xeerta wala gën cee nàmpatalu yan njëriñ ngay wan a jukki tey waxal ñu ko ci euh, xasida yi Serigne Touba Xaadim Rasul yi. matale ngëneeli xasida moom. Ah, borom rekk a ko xam fu mu fu nu mu nu mu day waaye nag lu tuuti rekk loo xam ni lu ñëpp di teg seen bët la xasida yi moom boroom da cay def def ak dindi ah, def ak dindi nag defe naa ni àdduna bépp soo doon wër kenn ku nekk mi ngi fëx jëm ci dara te loo li muy wër lépp mi ngi ci diggante boobu lu muy ñoddi wala lu muy jañ ginnaaw mi ngi ci xaside yi te muy lu wóor ah, ah, xaside yi ku ci nekk donte eh, juróom benn bayit ngay xëy di ko jàng nga di ko durus wala nga di ko yëkkati eh, njëriñ a ngi ci lool loo xam ne yow mi koy def rekk yaa ko xam soo ci bàyyee xel ak boo ci bàyyiwul xel nag am na ci ñoo xam nag ñu ngi koy jàng rek ay bàyyiwuñu xel li leen xasida yi di defal waaye doy na sëkk ci rek jànkati xasida sëriñ na ci ni ko mag ñi di nettalee li mu am ci xasida yi teraanga ja ko ci fekk muy loo xam ni mën naa ne jomb na waaye fekk na ko ci ngir xasida yi te sëriñ bi nee na yemul ci moom képp ku koy jàng ca ca teraanga jooju ci nga bokk loolu doy na sëkk waaye ci lu ñu mën a wax rek sunu jëmm yu xeebu yi nga xam ni euh, bi ñuy dugg ci xasida yi euh, mën naa ni sunuy waajur a nga fi sunuy mag a ngi fi waaye fi yëpp boo fi doon ñëw ci sama sama jëm rek laay wax man duma duma duma jërul may may may wax ci kanen li ma xasida yi defal euh, xëy na mënuma koo lim waaye defal na ma loo xam ni du liggéeyum ndey du barkeb baay du njàmbaar xasida yi rek la li ma mën a wax ak lu mënta wax nag di jaaxle di ko jàng sama jaaxle di fajo nit di jaaxle diis ma ko ma jàng ko jaaxleem faju loolu te mu wóor ma ne xasida la teraanga ji nag moom dañ ko jëlale te doo sonn hmm, kon xasida li ci nekk jaroon na Euh, ba ñuy nettali barki dem bu bàyyi Dramé doomam ji bi mu wàcceeb liggéey yal na ko yàlla yërëm sëñ mu Dramé mu ñuy wax nàmpatal jum leen doon xiir ci xasida yi ñoom doom yi ba rakk ji ñëw di naan ko bàyyi xale yi ñu liggéey mun ko mun ko accam liggéey xasida yi doy na lépp moom fa mu ne woon te wax na dëgg moom la la mu yëg moo ko xam euh, ku ci nekkul rek mënoo koo xam waaye xasida yi daal njëriñ njëriñul àdduna ak nga ci tedd àdduna tedd àllaaxira loolu nag la la nit la nit ki di wër waaw ko wóor ni ma nga fa wóoru fa jóg te wóor na nu muñ ngi ci xasida yi waaw. koy xam naa dañuy daal di euh, euh, tëj première partie bi nga xam ne nii mooy euh, partie première partie seen émission ziar di leen fàttali rek ñoo ngi fi tey ci Touba ci kër Serigne Cheikhouna Mbaj jànkatu xasida ci tomb yi am solo yi nga xam ne nii moom la ñuy waxtaanee. di ko ziar di ziar mbooleem soppe yi nga xam ne ni teew nañ waaye sëñ Cheikhouna mu mel ni ñu ngi waajal bis boo xam ne ni benn bis la ci bisu murit yëpp muy màggalu Touba 18 safar di bis boo xam ne ni Serigne Touba Xadim Rasoul euh, bëri na loo xam ne ni dël na ko ci murit yi nga xam ne nii ñu ngi ko ñu ñu ñu ngi ànd ak moom di ko di ko di ko di ko santale suñ borom ndax bés yi bëri na xew-xew yi bëri na waaye mën nañ ne benn bis boobu rek la Serigne Touba daan defal boppam woote nag ñu defle ko kon yaakaar naa ne bis la boo xam ne ni bis bu am wàccuwaay te làmboo ay njariñ la mu mel ni bis boobu bu ñëwee itam ëpp ci jànkatu xasida yi wala murit yi ñu ngi waajal moo xam uh, ca kem lañuy def ay yu bees yoo xamante ni xëy na dañ koy bégale wala dañ koy gunge wala dañ koy gàttandoo xew-xew boobu ñu bëgg na xam itam waajtaayu safar yu itam fan na ci sëñ naa tollu. nañ ni bu bu bu màggal gi jàllee la ñuy tàmbalee waaj. ndax itam taalibe yëpp ni niñ koy defee rek te ñun defe naa ni kenn gënuñu cee yay ndax sëriñ bi lim nu defal nu yëkkati xasidaam yi waajtaay wi nag ñoo ngi koy waajal bu baax ci anam yëpp nag ci njàng meeg bernde yeeg dalal gan ñeeg teeru leen ci na mu gën a rafete Ah, di ko di ko soññ bokki taalibe yëpp itam nag ah, ndax itam def loolu sax defe naa ni léegi bu weer wi xisee teru àdduna bépp riir eh, da ngay dem sax ba jàpp ni eh, teeru teeru gi teeru gi moo dàq ndax eh, foo romb rek nit ñaa ngi bég di bégalante loolu dara da ko dàqul waaye sëñ Tuubaa rek moo ciy wane boppam moo ci wane boppam waxtu bu jot te day te day te day gën a yokk ay millions la ñuy dépassé balaa màggal gi ñëw. Euh, loolu nag sëriñ bi moo ci wane boppam euh, at mu jot rek day gën a day gën di yokk di gën di yokku euh, yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm barke Cheikhul Khadim mbokk yi ni leen ko junjee léegi rek kon ñu daal dugg ci suñu ñaareelu pàcc ci émission ziar bi nga xam ne ni ñu ngi koy amal fii ci kër Serigne Cheikhouna Mbaj léegi nag ñu ngi toog ak kenn ci ñi nga xam ne ni ci kuréel gi ànd ak moom di jàng xasida la muy Serigne du wàdd sëriñ Abdou ginnaaw nuyoo yi ak ziar yi ñu ngi dalal kenn ci ñi nga xam ne dañuy jàng xasida ngay ànd ak moom muy sëriñ Cheikhouna Mbaj euh, ñu bëgg a xam diir bi ngay ànd ak moom yan kàddooy seede nga mën a joxe ci moom. salaamaaleykum wa rahmatullahi euh, di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ko wér di siyaare jawrin yi yëpp di jégalu bu baax ci kàddu yi mbokk mi ni ñu ko laajee rek sëriñ Cheikhouna diir bañ dalay ànd ak moom léegi mu amub diir. yaakaar naa bu ñu fàttalikoo bu du 2005 di 2006 ba léegi ñu ngi ci ginnaawam waaye mu doon nit koo xamante ne si wala fii dañ naan euh, uude matul seede ci béyu wopp waaye nag ah kay mat na ko ndax nit ki moom boo ko gënee jege rek mën ngaa seede ci moom bañ dalay ànd ak moom ba léegi wax dëgg yàlla gis ñu ci moom dara loo xam ne lu ñuy xeebe nit la te li muy dund mom lañuy nampatal bëgg na nit ko xamanteni si nit ku gëm sa bop nga bëgg na nit ko xamne nit ku am la ngay doon do nit ko xamne da ngay respecté say cadeau lolu xam nañ ko ci mom ñu koy jang ci mom bu baaxit wax deug yalla doon nit ku neexa jaxasol ndax bo ande ak mom do gis dara lo xamanteni si bo gene deng ci am kersa te lolu bok na ci màndarga yu baax ci doomu adam bi wax deug yalla liñ mëna sédé ci mom bari na Ah, ndax nit la koo xamante ne si xaside yi ñuy ànd di di ko jàng maanaam yow mi nga xam ne boo nekkee ci biir kuréel gi sax xaw a triser ci biir njàng mi maanaam bu bu la dina def siñ boo xamante ne si di nga xam xel ne yow li nga def moo tax mu def ko loolu nag ak jàngale gu baax ndax day bëgg toujours rek nga bàyyi xel ci li la tax a jóg loolu nag fulla ak fayda la waaw donte ko it dina def sess boo xamante ne si boo ko xoolee di nga xam ne nga def moo tax li nga def neexu ko moo mu def geste bi mu def waaw kon nit la koo xamante ni si nit ku neex a àndal la nit la tamit koo xamante ni si toujours man dama koy tooñ naan ko yow da nga da ngaa doonu Baye Fall ndax li nga doone Baye Fall mooy daanaka yu bari doo ci dugg toujours buñ demee sax ñun ñun ñi muy àndal fi fi ñuy dal moom fa lay bëgg a dalandoog ñun du bëgg ñu ber ko te daanaka bu ko neexoon bu ko ci fekk waaye suñ suñ fenn di jàngi boo ñëwee boo fekkee ne xamoo ko da nga doo kan la ci biir jàngkat yi doo xam ne kii mooy jëwriñ ji ak kenn ndax moom day daal di wàccee boppam ñëw bi ci suñ biir ñoo toog ndoo di waxtaan ndoo di def yëpp waaw kon daal nit la koo xamante ne si nit ku neex a jaxasoo la soo ko séenee da ko xeemeem waaye boo ko boo jaxasoo moom tamit doo bëgg bàyyi ab jataayam ndax ni mel ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu. Abdou xam naa beneen laaj bi ñuy ciy toftal mooy euh, diir bi nga commencé ànd ak Serigne Cheikhouna ba léegi laata ngay ànd ak moom ak bi nga ànd ak moom ban soppeeku wala ban avancement nga yëg ci sa jëmmi bopp. sant nañ yàlla bu baax a baax a baax euh, ci diir bi ñu ànd ak moom ndax yëg nañ bu baax ci suñ jëmm ne am nañ lu baree bari loo xamante ni si ginnaaw gii lañ la soppeekoo ci ñun ci njàngin ak ci doxin loolu sant nañ ci yàlla bu baax di ko ci sant ndax xay na bu ñu yàlla boolewuloon ak moom mën naa am nañ daan doxee dañuy continue di doxee noonu rek. waye bi ñu mom ak gis nañ lu bare lu bare bare lo xam ne na ci ñun muy ak dal ak ab yar ak teggin ak ko gis jox ko cër lu ci bare bari gëna doliko ko ci ci mom ginaaw biñu ñuy ak moom ba léegi waaw. Euh, ngeen jëf mbokk yi euh, baat baati euh, sédé yu am solo yi nga xam ni bàyyeekoo na ci Serigne Abdou wad bok ci kurel gi nga xam ñoy and ak Serigne Cheikhouna nambaaj yëkëti xasida ba tay ñu ngi déss ak yeen ci seen émission ziar fi ci kër Serigne Cheikhouna nambaaj xam ngeen ne boo leen seeni soxna Mame Bousso Diaw moom itam bokk ci soppe Serigne Cheikhouna waaye bokk nekk fii ci koñ bi kon soxna si ginnaaw ni yooyu ak ziar yi buñ la doon laaj tey ay baati seede wala lan moo tax nga sopp Serigne Cheikhouna ci xasida yi lan nga ñuy baaxee. maa ngi nuyu kenn si tur sant ji des nuyu bi Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu tewee te ah, ñu ne Serigne Cheikhouna moom dañ koo sopp rek te yàlla tax ndax xasida yi mi jàng moo tax ñu sopp ko. yàgg nañ koo dégg ay ay jàngam nag ñu yàggoon koo sopp lool amuñu woon moyen boo xamante ne mën nañoo bokk ci soppe yi defe naa buñ bokk ci soppe yi sëñ Abdou Wade mi wax léegi moo tax bañ bokk ci soppe ndax moo ñu gis ñu bëgg ko sopp ko moo tax bañ ñëw ci ci soppe yi te bañ dikkee soppe léegi tamit defe naa ne rëccuwuñ ko ndax sëñ Cheikhouna moom li mu def dañoo boole ci boppam daal boole ci fameem lu muy def dañu koy yëgal lu muy wax lu ne dañu koy yëgal tamit boole ñu ci boppam te defe naa ne loolu dong dafa dafa doy mënoon nañ koo sopp te duñu faale te moom ku ñu yëg la ku faale lépp lu ko wax da luñ ko lépp daal loo xam ne si ne daal mooy suñu soxla mooy soxlaam lu ñu bëgg rek loolu la bëgg suñu seex naa daal lañ xam si moom mooy baax lañ xam si moom ak yaru ak taalibe loolu lañ xam si moom ak mën a jàng benn bis bu mag boo xam ne nii Serigne Cheikhouna da koy taxawal fii ngir delloo njukkal xasida yi bis boobu yéen soppe yi lan moo ci doon seen taxawaay at mu jot bis bi muy taxawal fii nag muy mu koy taxawal bis sant Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma bis boobu ñun soppe yi bu dikkee bis boobu ñun ñoo ko moom suñu bopp seexunaa moomatu ko de ñun soppe ñun ñoo ko moom ndax danaa bu dikkee ñun dañuy jaay suñu kër ñëw fii la ñuy ñëw toog si fi li fi war a def lépp si bis bi dañ koy def lu ñu war wax tamit dañ koy wax lu ñu war a dox dañ koy dox kon defe naa booba seexunaa moomatul bis bi bis bi suñu bis la boobaa daal lépp lu ñu am ci am-am wala ci man-man wala ci xalaat bu rafet ñu ngi ci ñu ngi ci bis bi daal ba jàppale ko bam ba mu baax ak beneen bis bu mën am rek bu dul bii bis ndax defe naa ne bis yi bëri na moom suñu bis moom du benn bis bi sant Serigne Cheikh Mbacké Fall ma rek bari nañ ay bis ci kanam te muy ñëw. dafa mel ni ñoo ngi àgg ci fi nga xam ne nii foofu la matale jataay bi waaye dañuy joxaat sëriñ Cheikhouna rek mu ànd ak ñun ci genn xasida goo xam ne nii niñ ko waxee ci biir waxtaan wi donte ku bëgg daaji mag ñi la ñu nemmeeku ko bu baax baax ci am njàngin ci am njànginam mu nekk njàng mu wér njàng mu neex moo xam ne du yok du wàññi waaye da koy jéem a méngale ak ni ko sëriñ bi bëggee wax dëgg yàlla loolu mu doon wax léegi nii ci sëñ Muntaxa toog nañu ab jataay ñu koy nettali te moom fekkee ko mooy Bouchra boobu nga xam ne nii euh, doon na ko jàng ba sëñ bi seetaan ko Almouridiyyah TV di suñuy euh, naataango woolu ko déglu ko jàngalu ko niñ ni ko nettalee dafa mel ni noonu la noonu la nu ko waxaatee lu wér la kon mel na ni njàng mi sëriñ bi nga xam ne ni moo fi nekkal sëriñ Tuubaa mu ngi koy bàyyi xel yàlla na ko ci suñu borom gën a jàppale gën ko wéral gën koo aar ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne ni dañuy safoo am njàngam eh, ak ni muy jàngee ak itam wax dëgg yàlla dañoo bokk ci ñi nga xam ne itam dañuy koy roy bu baax a baax ci melukaanam ak yépp dañ koy wax foo xam ne nii suñu borom rek lañ koy seedeel kon sëñ Cheikhouna Euh, ngir tëj jataay bi nag ab daaj boo xam ne nii ku ko dégg ne lii nag daajub sëñ Seexuna moom lañ bëgg nga tëjee ko incha allah ya sayyidi ya buxyati ya junnate hasi mubayaatun ila yawmi liqa يا سيدي يا بغيتي يا جنتي هذه مبايعة إلى يوم اللقاء كن منقذي مما اختفى بتكرم وانصر إلي بنصرة تنفي سقا وانصر إلي بنصرة تمهو بها ما بي من أداء الخفي واسفقا وبي يسلك النهج الخويم وخس يديه سمح كل شخص باقتدى وتعلقا يا ناصر المنصور إني مختف جد لي بما يفدي مريدا لارتقاء يا ناصر المنصور إني مختف جدلي بما يفدي مريدا لارتخاء يا أيها المفتاح يا باب الهدى جدلي بفضل ولتخدني لتقى يا أيها المفتاح يا باب الهدى جد لي بفضل والخد لي لتقى يا بر يا معيم عيبي كله والقلب مني لقيه يا منتقى يا أيها المنجلسي ننجو بيه فلتنجني من كل شيء يتخى يا أيها البهر الكريم المحتمى كن مانعا لكل شيء ينتخى ووسائلي لك جيم شيء بدل وهي الكتاب اللس بصدقك صدق وساني سنتك التي قد بين وسالس الإجماع خزما ملحقا صلى عليك الله خير الصلاة والليل سهب الهدى تغلخا أسكى زلات محسلا من مرشد هذا المبايع أو يسير محققا أسكى زلات مع من جاسب هذا المبايع للمدينة ملحقا حتى يسافر كالمسافرة التي يرجو ويحجو أن تكون تحققا يا ربي قساس الودية لي إلى يوم الجزاء يوم الأمانة واللقاء يا ربي قساس الودية لي إلى يوم الجزاء يوم الأمانة واللقاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kon Serigne Cheikhouna gannaaw daaj bu am niñ leen ko waxee woon léegi rek ku ko dégg xam ne daajub Serigne Cheikhouna Mbathie la yan kàddu ngay tëjee ngir ñu tàggatoo ak mbokk yi taalibe yi ñu doon seetaan fu ñu mën a nekk ci àdduna. alhamdulilah sëñ Abdoulaye jërë jërëjëf xanaa euh, kàddu yi ñuy tëjee di sant yàlla bu baax a baax sant sëriñ bi euh, di la sant bu baax itam ci yitte ji ak euh, pas-pas bi ngeen am ci liggéeyal ko sëriñ bi. ci fann gi ngeen fété di leen ñaanal suñu borom itam dimbali leen ci ba ngeen ag ci fu kawé seen jortu ak Serigne Touba euh, di sante bu baax itam mboolem ñi nga xamni ñi ngi doon bayyi xel sit bi euh, di sante itam sunu Yuri yi nga xamni ñi ngi ci kër gi di leen ñaanal suñu borom bayyi leen fi ñu gungu ñu ba ca kanam kanam ay di siyaar mboolem euh, soppe xaside yi talibé Serigne bi ñepp rek. bàyyiwunu ci kenn euh, sant nañ bu baax kàddu yi daal mu gudd mu gàtt kàddu yi sant rek la euh, ak ngërëm euh, xam ni itam mënuñ leen a fay ndax itam yéen a tax ba ku kuy dégg tur wi te sori jëm sori sori fi jëmm ji nekk yéen a jàppandal loolu lépp ba mu mën caa jote na mu ko gënale loolu nag amee nañ leen ci ak cant di leen ci ñaan suñu borom dolli seen ndimbal bu baax a baax a baax ba fu ngeen ci yéene àgg rek suñu borom àgg leen fu kawe seen jortu barke Cheikhul Khadim di ñaanal sëñ Mouhamadul Muntaxa suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool doon kéemtaan ci ak yàggam fi yàlla na doon kéemtaan ci ak yàggam fi ba li mu yéene yéene juré ji mu yéene léegi sëñ Tuubaa ku xam na ko suñ borom bàyyi ko fi mu def ci lu kawee njortam barke Cheikhul Khadim ànd ko ak murid yëpp. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne ni yéen ngi ni doon bàyyi xel foo leen mën a nekk ci àdduna euh, ci euh, site bi di www.mouridetv.net ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal bu baax a baax sëriñ Cheikhouna Mbagne ni mu ko waxee léegi cant ak ngërëm yi ñun la war ñeel ko ndax mën nañ ne coordination émission bi ginnaaw bi ñu ko waxee sëriñ Moussa Diop di wëllëreem ci diirub ñaari fan rek lañu ko nungul ci xat yi nga xam ne nii nemmeeku nañ ko ci jamono ji kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko jaajëfal ci nungul gi ñu ko nungul waaye di ñaan itam liggéey bi nga xam ne ni dañ ko bokk ak moom muy toolub xaside yi di ko liggéeyal Serigne Touba na ñu ko Serigne bi gën a nungul ndax nungul na ko nungu na ko na ñu ko gën a sellal gën ñu ko aral bañ boole bañ am njëriñ li bokk ko ak mbooleem julliti ak taalibe yi rawatina soppee xaside yi waaye di ziar mboolem jullit yitam itam ci bis bu tedd bi nga xam ne ni niñ ko waxee ci ak njaalbeen bis bu am wàccuwaay la ci euh, euh, taarixu jullit yi muy Ashura di jaajëfal euh, mbooleem soppe yi nga xam ne ñu ngi àndoon noonu ñun euh, jataay bi di jaajëfal itam mbooleem ñi nga xam ne nii ñu ngi ñu doon euh, seetaan fu ñu mën a nekk li nag nekkoon suñ première sortie ci émission ziar ñu koy ànd ak jànkatu xasida yi suñ borom dogal ñu jëkke ko ci Serigne Cheikhouna Mbaj di ñaan ci barke xasida yi ak turam mu teddoo di Cheikh Serigne Touba Khadim Rasoul mu gën a yaatu di leen jaajëfal di leen balu ak di leen balu ak wasalaamualeykum wa rahmatullahi